bonsoir chers amee internet yéen mi safar ñu bàyyi xel fii si suñu people tv suñu people point net mbégte la ñuy am saa su ne contentement di jàkkaarloo ak yéen nee naa leen tey na ñu seet si ndaanaan ah l'incontournable Samba Diarra Mbaye borom Pikine nee naa leen king ambianceur kooku lu mu génnee rek day neex tey nag ñu fas yéenee ñëw seet ko waxtaanee ci clip bu bees bi nga xamante ne génnee na ko nee naa leen démb la euh, le euh, bi génn mais actuellement wër na partout dans le monde Samba Diarra ñu ngi lay nuyu. Ramatoulaye maa ngi lay fay bu baax. Ah, di la nuyu di kontaan kontaan ci yow di la bége ah, di kontaan ci képp koo xam ne rek yaa ngi seetaan émission bi ah, di siyaar bu baax a baax a baax waa Pikine ki nga xam ne mooy sunu Paris la France ndax nag balaa kenn ñoo bëgg ñoom ñoo ñu njëkk a bëgg donc ñu ngi kontaan ci ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi sonn ci Samba jaar Mbaye maa ngi lay siyaar di la bége bu baax a baax a baax di kontaan ci ñëpp. d'accord mhm. Samba ñu nga génnee clip bu bees ni ki démb nga tuddee ko mbax mm. mais pourquoi mbax ak lan mooy mbax. waaw xam nga ñun ay doomu géwél lañ. xam nga te képp koo xam ne rek doomu géwél nga xam nga pin xam nga mbax. Mm-hmm. ah pin ak mbax ñoo ànd euh, euh, métier bi ñu jàng ko fi ñu ko war a jàngee euh, yàlla dogal ñoom ci ay inspiration yu bëree bëri bëri bëri bëri moo tax ñu indi mbax. noonu la demee. Mm-hmm. ñu gis ne nag ci biir euh, clip bi euh, yaa ngi ci doon wone benn image nekk si classe yàgg say élèves nga leen di jàngal te lan moo la inspiré boobu le waaw parce que parce que parce que parce yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci classe bi. ah ma dugg si ci biir classe bi. Mm-hmm. waaw dama leen di wan ni rek man maay seen professeur. d'accord man ci man la ñuy jànge mm-hmm. maa leen di jàngal. Mm-hmm. noonu la demee ci biir euh, yooyu la. nga choisir ci ku ni Euh, parce parce que gis nañ si ñeenti élèves. Ah. mais euh, trois yi moo gën a attiré tey mën naa ne attention ñëpp. Mm-hmm. parce que kenn ki mu ngi représenté euh, Ousmane Bongo. Mm-hmm. keneen ki représenté Khadim Tan. Mm-hmm. mais keneen ki tamit mu ngi représenté ki nga xamante ne ni moom mooy Pekaay Mbaye. mais pour lan nga boole ñetti artistes yooyu yëpp. loolu nga gis yow. Ah. <laughs> mais loolu la ñëpp gis sax ba. non damay laaj boo xam ne loolu la ñëpp gis. loolu la ñëpp gis en fait. mais man mi def sama clip. choisir ci li ma neex jël ko teg leen ci classe. Mhm. nekk seen patron. Mhm. nekk seen professeur di leen jàngal lan mooy mbax ak pim. Mhm. mais mais yow yaa gis loolu mais man gisuma loolu dama wut samay élèves rek tànn leen teg leen ci biir classe bi. waaw ah, c'est ça mais comme ni nga ko waxee tey Samba ngeen da ngaa wut say élèves. est-ce woon ni yeneen artistes yi ne leen euh, jamono ji yow yaay seen ay patron ci biir art bi. xam nañ loolu. ñoom ñoom. ñoom. ni nga jël si classe bi teg leen. waaw. pas ñi ma bañ a jël ci classe bi teg leen fa mooy ñi ma ko sekkal xam nañ loolu. xam nga damay faral di wax naan nit ku nekk heure boo wéetee di nga xam ñi nga man ak ñi la man waaw te noonu la demee. maanaam tey Samba Diarra Mbaye euh, ñëpp nangul nañ ko ni que talent mi ngi ci woom ak yu bëri bëri bëri bëri bëri donc am na yu bëri yoo xam ne jarul sax ñu ciy débat ndax loolu weesu nañ loolu mm-hmm. mais ñoom xam nañ ma mm-hmm. c'est ça d'accord mais ñu gis aussi si biir équilibre bi yaa ngi ci ànd ak ki nga xamante ne euh, moom mooy Salam Diallo ah. lan moo tax tey nga choisir ko tout en sachant que ne artistes yi ndaanaan yu mag yi bëri nañ fi waaw Papa Salam moom sama diggante man ak moom diggante papa ak doom mm. ndax sama sama ngénte euh, ñu ngi may wax naan ma moom moo ko tëggoon ah muy suma papa di suma lépp di nit koo xam ne xol bu rafet la yor mm-hmm. di nit koo xam ne nit ku baax la mm-hmm. nit la koo xam ni nit ku simple la nit ku oyof la mm-hmm. mm, bu ko neexoon rëy wala mu demee neneen ndax nag euh, def na lu bëri loo xam ne ñun defaguñ ko waaye yàlla moo dogal moom mu bëggal nu boppam lépp lu ñu def mu sentir ko xam nga ñu def morceau bi nag euh, challenge bi toj àdduna xam nga ñuy enregistré morceau bi euh, mu choisir ko ndax maa ngi dégg yaa ngi dégg mënaan ci morceau bi mm-hmm. papa salam foog nga ñëw ndax morso bi dama la ci sentir ci mbaax mm-hmm. ah muy suma papa di suma lépp maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax mm-hmm. waa di kontaan ci moom mais gis nañ ni aussi ni son bi nga génnee nii amoon na fi ay jamono euh, ki nga xamante ne moom mooy xaadim temps euh, daf ko doon taasu mais est-ce que tey loolu du indaat encore beneen polémique par rapport sa diggante yéen ñaar non yow man lu ma taasu maa ko moom mbaa maa la loolu. déggoo lu ma la xam nga misaal bu ndaw weesuwul rek. Mm-hmm. ma dugg ci kalaas bi teg sama élèves. Mm-hmm. waaw loolu rek euh, wax na lépp. Mm-hmm. donc man lépp loo xam ni rek yaa ngi koy dégg ci Samba Diarra Mbaye ci man la jóge jógewul ci kenn. ndax damay faral di wax naan ñun Pikine la dëkk. te Pikine am na lépp. Euh, heure bu ñu neex mënuñu def. ay morceaux yu morceaux mën nañ def ay album yu album ndax Pikine dëkk la ay heure boo yeewoo di nga gis loo xam ne war nga koo mën a way te xam nga ni boo ko way day def ndax réalité la boo xam ne doomu aadama ñu ngi koy dund donc euh, Samba Diarra Mbaye li nekk ci boppam car macha allah génnagul ah ñu ngi ginnaaw kilifa ku ci mel ne Abdou Waxam Paal topp ci ay ginnaawam mbaawam mooy suñu waaw déetam mooy suñu déet donc noonu la demee mhm. waaw Euh, Samba amoon na fi tamit euh, ay jamono diggante yow ak ak ki nga xamante moom mooy Ousmane Bongo benn xëccoo amoon na fi si sonwal kii waa waa koñ bi. Mm. Ousmane Bongo génn nee na moom moo ko moom ñi ñi ne déedéet moom moomu ko Samba Diarra Mbaye moom moo ko moom mais ñi ñëw gis ni jékki-jékki kenn déggatul Samba moom mu wax euh, ci wàllum boobule son lu dul ni dañoo xëy bis rek gis Ousmane Bongo génnee son boobu. waaw parce que Ousmane sama rakk la moom suma la. te rakk moo am droit mag defar jëfam mu ñëw jël ko moo tax mu ñëw jël ko ma bokk ak moom te bu subaa bu bëggee yeneen ma jox ko. Mhm. man yi ma yor du jeex. d'accord waaw. Mhm. comme ne tey Samba bu ma la déggee c'est comme si que ne yow da ngay créer euh, say di ñëw di ko jël. ak samay mag. ak say mag. waaw bëri na. mais tamit na sax ma ne c'est que mënoo ne tamit ak samay mag ba pare nga bëgg cee yam say mag ñan ak ñan ñan ñoo jëlagum fii tey say son yow à ki nga xamante euh, ne moom mooy. Ousmane Bongo ak Khadim Temps moom mi ko taasu fi. xam nga yow la problème a nekk mooy. Mhm. yàlla dogal na ne ñu ngi soog gisante tay te yow sa biir yow boo waxalee yàlla xam nga ni man dama aay. Mhm. donc sénégalais yëpp d'accord donc. Mhm. la dañuy sa relation ak Pekaay a laale. non dañuy laale Pekaay sama frère la. jàmm la ñu sekk comme. ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa ko sekkal man li may wax chaque jour képp koo xam ne rek micro mi ngi lay teral muy xam waykat beeg wala tëggkat beeg wala taasukat bi mm-hmm. Samba Diarra Mbaye jàmm ak yow mm-hmm. ndax li may wax saa su ne jot amul te li ñuy gisante sax bariwul te nit koo dul gisanteel mënoo jot ak moom mm-hmm. donc jàmm la ñu sekk bu ñu romantee dañuy nuyante ci jàmm c'est ça comme ñëpp. d'accord Samba tey euh, quest que ça te nga nekk jeune. juddoo pikin màggee pikin mun naa ne euh, fekk nga fi ñeneen ci biir aar. Mm. mais tey foo tourné biir pikin mun naa ne partout au Sénégal Samba Diarra Mbaye Samba Diarra Mbaye tey boo wootee sabar ñëpp génn ñëpp ñëw loolu lan la lay def. waaw xam nga dama ne garam bu pénc galaw bi du ko gor. te yàlla mooy xool ko ko neex def ci moom la ko neex li ma wax saa su ne ñun mënuñu fee def lu fi kenn deful waaye sunu borom dogal na ci ñun ah, nit bu nu gisee daf ñuy bëgg. te yàlla dogal na ci ay doomu adama yoo xam ni dañu bëgg suñu jëmm ji ba ñu jaral leen lu nekk te gis bëgg yàlla moo koy def donc ñoom euh, euh, muy pikin wala muy feneen ak feneen képp koo xam ne yaa ngi may bëggee da nga da nga jël Samba Diarra Mbaye def ko comme sa rakk wala sa mag yaa ngi comprendre def ko comme ku bokk ci yow donc man ak ñoom famille du tëgg ak way ak taasu moo tax ñuy ànd man ak ñoom parce que yow gis nga ni que man su ma génnee dara damay toogaat toogaat toogaat toogaat ba mu ñor ma génnewaat leneen. Mm-hmm. donc euh, ñoom xam nañ ni que ñun yaa xamte dara. Mm-hmm. te yëf du course de vitesse. Mm-hmm. yëf yi la. te ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi am suñu carrière ñu ngi koy doxal te yàqaluñu kenn parce que kenn yàqaluñu. donc euh, man ak sumay fan jàmm laa fekk ak ñoom. ñoo ñu bëgg ma fu ma nekk ñu fekk ma fa. ah di jël seen alal di ko def ci man. Mhm. di jël seen doole ak seen xalaat di ko def ci man. Mhm. donc maa ngi képp koo xam ne yaa ngi may béggee maa ngi lay siyaar bu baax. Mhm. di kontaan ci yow. di wax ne aw ma sa fay. d'accord bokk aussi si artiste bi nga xamante ne ni yaa njëkk a woote sabar ba pare daggalu say soppe étiquette loolu nag sàmba mu indi euh, coow bu nekkul euh, ci même réew mi euh, parce que daanaka jour boobu dafa tombé woon yàgg sa beneen nawle. ngeen bokkoon benn événement. moom mu tëgg la yow tamit nga tëgg fii mais ñu gis ne ñëpp dañoo fàkk jóge ci moom ñëw ci yow. waaw parce que àdduna boo bëggee am lu kenn amul da def lu kenn deful te dañ fi fekk suñuy papa ñoom ñu def lu nekk. ay ñoom xëy na tey idée wu ko def sabar sabar war na mën a am ñu teg son et lumière. teg sabar yi. Ah, def loo xam ni euh, comme dîner de gala lay doon ci tànn war na mën a am. sabar war na mën a weesu foofu. parce que suñu culture la benn. beneen bi mooy que ni euh, lépp loo xam ne dafa yomb baaxul. et début bi métti woon na parce que 500 la ñu commencé. dem 1000 francs dem 2000 dem 3000 dem 5000 et que léegi doomu aadama yi wala jigéen ñi nga xam ne ñoo ñu bëgg ak góor yàlla yi lañ ñuy wax sax organiser sabar def ko entre ñaari junni. ñu ñëw donc yëf foofu la toll. et que euh, du da ngay ñëw rek may tëgg fii may tëgg fii may tëgg fii may tëgg fii après mu jeex ku ne dem toj nga fi donc yi fi tollatul foofu. Mm-hmm. parce que yi fi liggéey la. Mm-hmm. et que euh, Rose da ko def métier. Mm-hmm. xam nga teral ci ay doomu aadama yu bëree bëri bëri bëri. mun naa jël exemple ci moom. et jël yëf fi def ko métier. te nu mu ko defee métier noonu lañ ko bëggee jëlee def ko métier. te sunu idée ak sunu xalaat mooy euh, disque dooru sabar. Samba Diarra Mbaye dem jël ko indi ko ci Sénégal. Samba loolu moom fort na di. ah fii war na mën a am parce que tey boo xoolee sama génération tànn biir Samba Diarra Mbaye rek moo ko fi defee. donc man ak ñoom bokkuñu yoon. Mm-hmm. man beneen vision laa am ñoom ñu yeneen vision. Mm-hmm. donc man ak ñoom duñu benn. Mm-hmm. Eh, xalaat yi du benn dara du benn. et que moo tax ma ni la boo bëggee lu am lu kenn amul da ngay def lu kenn deful. noonu la demee. jamono yu coow li bëri torop ci wàllum showbiz bi ngay dégg ñu ne euh, artiste bi day euh, ak beneen artiste bi fecckat bu jugee ci kii dem euh, ci beneen artiste tey nga nekk tey artiste bu mag ñëpp ràññee la nga yore aussi say musicien saay boo xëyee di dégg ñu ne diw daw na fee lan la lay def. waaw xam nga man nag. aw ma habitude sax di wax ci ay waxi jàmbur. ndax yarewuñu ma noonu. et nit ku nekk. da war a am loo xam ni moom nga moomal soo bopp am na loo xam ne yaa nit ñi yéen ko bokk et que loolu mën naa ci wax sama xalaat rek sama xalaat rek laa ci wax mooy que ni lépp rek dërëm bi génnul gaal gi et ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp olof la ñuy laax laax ñu leneen donc ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy def et que yëf yi du jeex ndax bu doon jeex jeexee na ci ñoom sunu papa Youssou Ndour ñoom Thione Seck ñoom Omar Pène tey ku ci nekk ñoom bay nga sa waar mu demee neneen te am na yu bëri yoo xam ne amul. donc aar rafetal dafa am solo. ngir ëllëg boo dajanteeg sa moroom. wala nga dajanteeg sa nawle bañ a rus. xiif yi dafay jeex. bu néewee jeex bu bëree jeex. donc nañu fonkante jàppante respectantante. xam ni ñun ku ci nekk yaa mën fonk sa moroom. et réew mi toll na foo xam ne koo fonkul du la fonk. koo jàpp daf lay jàpp koo jàppul du la jàpp. et que gu yàlla xar def na ci la ci war a gëm. te kenn yorul wërsëgu kenn. donc ak lu mënti xew rek ñu rafetal mhm. ah, jëm ko teg ci yoon ah c'est ça parce que mhm. yëf yi moom du jeex mhm. ëllëg ñun dañuy dem suñuy doom ñooy ñëw ak ñeneen. Mm-hmm. donc nañ ko rafetal rek. Mm-hmm. waaw d'accord mais aussi souvent sàmba gis nañ ni euh, li ngay dem si sa chaîne yenn comme tey Samba ju euh, jóge fi naan damay dem baali ji Wally Seck. Mm-hmm. wala wala damay dem baali ji Sidi Diop loolu luñ koy farataat di gis si Samba euh, bëriwul lan la dafa am looy moytu wala yow tamit da ngay bañ ñu dëkkal la fenn foo dëkkul. waaw loolu nag c'est normal parce que dama nekk nit koo xam ni. damay bañ ñu ne ba ñuy wax Samba Diarra fa la toogoon. et man ñi ma xam-xam na ni ci fulla laay dox ak fayda ak personnalité man euh, ute na ay ak ay géwal yu bari wala ute naag ak ay artistes yu bëri parce que aw ma fréquentation bu ma dem fenn man su ma jógee sama kër maa ngi fii ci studio bi toog toog ak waxtaan ak moom mu sotti ma xalaat ma jaar ni dem sama kër moom xam na li may wax donc yooyu yëpp du dara du du du bañ nit wala du yooyu parce que ñi nga xam ne fekk na ak ñoom. damay dem toogandoo ak ñoom naanandoo ak ñoom ataaya. man Pikine su man aw ma fenn sens interdit. damay dox heure bu mu neex. damay sol ay plastique damay sol culotte damay vivre comme ñoom ni ñuy vivre. Mm-hmm. parce que fii c'est ça parce que àdduna fi dara du fi dara. Mm-hmm. te nit noo mënti mel ak dara boo mënti am doomu ñoo la ko def. donc li tax du ma du bëgg di dem chaîne yu bëri. Mm-hmm. mooy que damay bañ xam nga. wala jotaay yu bëri damay bañ Samba Diarra fii la toogoon ba ñu koy wax. wala wax na ci lii wala wax na ci laa. yooyu lay bañ. parce que man du ma nitu détail. waaw ma dugg ci problème mu kenn. Mm-hmm. moo tax du ma bëgg kenn dugg ci sama problème. c'est ça. Mm-hmm. loolu rek la. Mm-hmm. tey mën nañu waaw waaw waaw man jàmm laa sekk ak ñëpp. jàmm laa sekk ak ñëpp man yàlla dafa dogal Samba Diarra Mbaye yi ñoo ko gën a bëgg sax. man ñi nga xam ne ñoom laa ko sekkal yàlla xam na ni billaahi wallaahi wa taalaahi ñu ngi may seetaan ñoom ñoo ma gën a bëgg kay ku ci nekk nag may yëkkati sa téléphone di mu woo su ma la waree woo dama lay woo bu ñu waree waxtaan dañuy waxtaan c'est kon kon jàmm laa sekk ak ñëpp te nit ki boo sekk ak moom jàmm pour ngeen def dara dafay yomb waaw décembre bi nag waaw décembre bi nag incha allah ñu ngi topp promotion bi. Mhm. Euh, am na ay concert yoo xam ne war nañ ko def 31 décembre incha allah euh, fii biir Pikine. Mhm. loolu weesoo nag incha allah ñu ngi ñu ngi ñu ngi projet grand théâtre mhm. incha allah xam naa ni léegi incha allah bi dina génn. père génn ko. Ah, ñu waajal grand théâtre jëm fa bégal suñuy soppe. waaw ah, c'est ça. waaw kontaan ci ñëpp. Ah, képp koo xam ne yaa ngi may bégee. di la wax ni sàmba Diarra Mbaye sa Samba Diarra Mbaye la. ah di bëgg ci ñëpp. Eh, waaw waaw waaw di di di di di di kontaan ci ñëpp. di kontaan ci képp koo xam ne yaa ngi may bëggee eh, maa ngi lay fekk fi toog di la wax ni kontaan naa bu baax a baax a baax ndax peccum liir bu neexee yaa jaa jàpp ci mbagg ya di kontaan ci xale yi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel may ànd ak ñoom seen i papa ak seen yaay jël ma wóolu ma jox ma leen ñu nekk sama ginnaaw ah di ma jàppale di ma dooleel maa ngi kontaan ci ñoom ah di kontaan ci képp koo xam ni rek yaa ngi may bëggee ah, di ko di di di di di di di di bëgg ci Abdou Ndiaye ah ak suma staff beeg ñëpp maa ngi kontaan ci ñëpp ah di gërëm suma yaay di sant sama baay di gërëm ñëpp képp koo xam ne yaa ngi may bëggee ah maa ngi lay maa ngi lay maa lay maa ngi bëggee ah, di ñaanal nag kenn koo xam ni moom duma ko gërëm dama koy ñaanal muy suma papa Abdou Wahab mm-hmm. waaw moom dama koy ñaanal taxawaayam yàgg mm-hmm. waaw di ko ñaanal euh, yàlla gën koo dëgëral ndax moom euh, bëtu papa ak doom la moom man maay taaw moom mooy suma papa donc maa ngi kontaan ci moom bu baax di wax Sénégalais yëpp nan ma ko ñaanalal gudd fan ak wér ndax nit la koo xam ni réew mi moo toll foo xam nit ku nekk li nga am yaa ngi koy denc bokk ak say bokk donc nit ki boo amee di partager ay nit yoo xam ne bokk ak ñoom dara yàlla moo leen boole ñoom ñuy ñëw ci yow seen i rab xiir ko ci yow ñuy ñëw ci yow nga jël sa alal di ko def ci ñoom. donc nit ku mel noonu dañ ko war a ñaanal yàlla dëgëral ko. ah ñu ngi maa ngi koy kontaan ci moom bu baax di ko gërëm. ah di ko wax di wax ni eh, maa ngi ci ginnaaw. waaw ah, c'est ça. waaw di kontaan bu baax a baax a baax ci waa sunu people. ah eh, mi nga xam ne moo ne ci caméra bi. moo xam ne lu mu filmé wul baaxul. jàndum yow rek la ñuy topp <laughs> ramatulaay moom mi nga xam ne nag moom bis ni ki tey non père nee na jox lan ko fan si club Samba Diarra Mbaye bi a ah, moom moo ko gérer ramatulaay. incha allah daa gérer lépp. ah benn rek la ñuy <laughs> voilà chers amis internautes kon ni ma leen ko waxee woon ñu nañu seesi nee naa leen l'incontournable Samba Diarra Mbaye borom Pikine mu génnee nag li nga xamante ne moom mooy single bu bees mu tuddee ko mbax tey nag ñu seesi woon ko fii Pikine waxtaanee nag ci lu bëree bëree bëri waxtaan aussi ci carrière am mais waxtaanaale aussi lépp loo xamante ne daale na ko euh, ci biir euh, clip bi di jaajëfalaale càndum nee naa leen saay bu yanjee rek moom moo fi jaax di la joxaat di daje ba beneen yoon ak beneen artiste d'ici là portez-vous bien et restez connectés